asalaamaaleykum les amis ziar naa leen bu baax a baax a baax ci seen podcast wolof tech comme chaque semaine ànd ci ak man mi El Ibrahima tey nag ñoo ngi ci sunu sixième épisode dinañu waxtaan ci les réseaux sociaux. lu tax les réseaux sociaux parce que dañoo def ay seetlu yu am solo bi si njëkk mooy tey soo xoolee ñëpp ñoo ngi wax ne Afrique mooy avenir bi et li tax ñuy wax ne Afrique mooy avenir bi c'est parce que dañoo am benn population très jeune. et ay études yu bëri aussi montré nañ que ne ci at yi di ñëw affaire boobu day gën a yokk ñaareelu seetlu bi mooy jeunesse boobu noonu tey jii nii ñoom ñooy gën a utiliser les réseaux sociaux ñetteelu seetlu bi boo xoolee réseaux sociaux yi nga xam ne ni ñoo existé yi ci gën a bëri ay américains ay européens ay asiatiques ñoo ko moom. alors li ñu jàngat te ñëpp xam ko mooy ku yor sa information yor say données personnelles day am pouvoir bu mag si yow surtout si wàllu koom-koom mais aussi si wàllu sécurité donc loolu moo tax ñu def épisode bi pour waxtaan les réseaux sociaux parce que nag soo xoolee lu ci Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Instagram TikTok YouTube Snapchat Pinterest ak yeneen ak yeneen fii ak 10 ans 20 ans 30 ans dina am yeneen réseaux sociaux qui xam ne fait alors je pense que nous, en tant qu'africains africain yoon la ci aventure pas seulement comme des consommateurs mais aussi nek ay créateurs et pour que lolu mën nek aussi foog ñu comprendre lan moy réseaux sociaux yi fan lañu ñu nak naka la juddoo nan lañu def ba yex fiñ fi ñu tay mais aussi comprendre naka lay doxé tay jini pour mën proposer dans le futur ay solutions yo xamanteni ñoko momal suñu bop alors il faut aussi ñu comprendre que ne liggéey boobu noonu nekkul liggéeyu informaticien parce que ñëpp ñoo am xel mu rafet ñëpp ñoo mën a xalaat te am ne ay idées yu rafet a rafet informaticiens former ay groupe pour réaliser ay mbir yu doy waar. donc loolu moo nekk objectif 6 sixième épisode bi mais juste avant ñuy dugg ci sujet bi dañuy dugal information bu découvrir alors information bi nag ay jeune la yoo xamante ni dañoo créer benn application mobile bu am solo bu ñuy wax xarala application boobu nag daf lay permettre à travers ay vidéo nga mën a jàng techniquement naka la ñuy defaree ay application ay site web ak yu demee noonu ci ay langage de programmation yu bëri li ma gën a neex nag ci application bi mooy cours yi dañ koy joxe en français en wolof ak nag ci yeneen langue alors ñu la présentation application ak plateforme xarala ci rubrique Vocalcast avec Ousseynou Diop. alaikum waa Wolof Tech salaamaaleykum alaikum yi ma ngi nuyu ñëpp di leen ziar bu baaxa baax di bég lool ci dalal gi ma dalal tay man nag man maay Ousseynou Diop nekk ki nga xamante ni moom moo jiite lu ñu naan xarala académie di jàngalekat ci wàllum xarala yu yees yi damay jàngale xarala yu yees yi nu ko lu ci mel na naka la ñuy defaree ay application naka la ñuy defaree itam ay site internet man aussi développeur la maanaam damay defar lépp luy application moo xam application yu mën a télécharger la ci jollasu yi maanaam ci téléphone yi wala application yoo xamante ni dangay am benn adresse bu lay jox rek benn wala mooy lënkaay benn lënkaay bu lay jox demee rek nga dugg ci application boobu mooy application web itam maa ngi nekk koo xamante ne yëngu ci xaralo yu yees yi nekk entrepreneur di defar ay solution yu bëri ngir entreprise yi léegi xarala moom mooy lan ak lu ko tax a jóg dañoo gis ni ndaw ñu bëri dañoo bëgg jàng xarala yu yees ñenn ñi am nañ moyens yi am nañ lu leen di may ñu mën a dem ci yenn daara yi école yu kawe mën a dem foofu daal fay jàng xarala yu yees yi ñeneen ñi amuñu loolu ñi ci des itam làkk bi da leen di jaaxal maanaam làkk ba ñu fay jàngalee ñoom jekkuwuñ ko maanaam mënuñu ci dara loolu moom moo tax ñu daal di indi xarala xarala mu nekk euh, benn solution boo xamante ni dalay may nga mën a jàng xarala yees yi làkk boo mën a dégg di nga ko mën a jàng moo xam wolof nga dégg pulaar wala français wala anglais xarala fu mu toll nii am nañ benn site internet mën nga fa dugg xarala point co am nañ tamit benn dalu YouTube mën nga fa dugg Xarala Academy fi mu toll nii nag liñ mujjee génnee moom mooy sunu euh, jëfandikukaay ca Play Store maanaam benn application buñ mujjee génnee boo xamante ni mi ngi Play Store application boobu nooy def ba am ko ak naka nga koy jëfandikoo. léegi boo demee ci Play Store Google Play dangay dem foofu nga daal di bind nga daal di seet luñ naan Xarala boo demee ci kaw da nga gis fu ñu def xarala nga daat koy bës boo bësee nga daat koy wàccee ci sa jollos maanaam nga téléchargé ko ci sa téléphone léegi boo ko téléchargé ba noppi wàccee ko ci sa téléphone da lay laaj nga nga lënku maanaam nga connecté wu maanaam nga dugal sa sa mot de ak sa email bu nekkee amu ko compte mën nga bës ci suuf fi nga xamante ni naan la ah

yow nag xam nga li nga war a jàng nga ni dama bëgg a defar ay site mën nga dem nga daal di seet lu mel noonu maanaam da nga gis xamante lañ fay def recherche nga daal di seet li bëgg foofu mën nga fa bind bind Python wala bind fa Django wala leneen loo xamante ni moom moo la yitteel soo ko bindee rek da koy indil beneen bi ci topp mën nga gis euh, fi ñu def cours yi maanaam fi ñu def formation foo bësee foofu rek dalay lay indil cours yëpp bu la indilee cours yëpp nga bës cours bi nga xamante ne moom nga soxla bu nekkee Python nga bëgg a jàng bu nekkee defar application nga bëgg jàng bu nekkee defar site nga bëgg a jàng nga bës léegi boo bësee ba noppi dalay yóbbaat ci beneen xët xët xët woowu nag fa la lay wane maanaam euh, loo fañ goog maanaam formation bi lu ko tax a jóg wax la ci lan lan nga ci mën a jàng boo ko jàngee ba noppi lan nga si mën a def ak yu kii yu ni mel. léegi boo noppee ci loolu nga daal di bës enrôlé enrôlé moom moo lay may tey boo bu nekkee da nga dem ay fan nga bëgg xam fan nga tolloon ci benn cours ak yan kuur nga doon jàng nga mën koo xam ci lu yomb mooy enrôlé boobu nga bës boo bësee ba noppi da lay wax nga daal koy poursuivre maanaam poursuivre mooy nga mën a tey jàng cours bi nga mën ko jàng fu mu jógee ba fu mu yem voilà loolu mooy nu ñuy jëfandikoo xarala mu nekk euh, loo xamante ni bañ ko defaree yàggul. jubul di laaj ñëpp seen xalaat lépp lu luñ ci war a soppi wala lépp luñ ci war a yokk itam ngeen daal ñu koy wax. di sant bu baax waa Wolof teg di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu dalal gi ngeen ñu dalal di wax nii na leen ñëpp topp lu mel ni am na solo lool daal di fexe ba xarala yu yees yi ñëpp mën ko jàng ci seenu làkk jërëjëf ba beneen yoon ci beneen émission. alors ñu ngi félicité bu baax Ousseynou Diop ak waa Xarala Academy ci seen initiative bu rafet bi ñu am maanaam defar application mobile bu mel nii donc euh, di wax aussi que ne man lii dafa nekk contente bu mag ci man parce que dafa bokk ci samay combat c'est-à-dire fexe ba képp ku bëgg am xam-xam ci wàllu technologie nga mën si jot sans pour autant nga am benn barrière ci wàllu langue yi alors ñu ngi ñaax ñëpp nag pour que ñu dem ci Play Store télécharger application bi mais aussi jëfandikoo ko d'ailleurs ñun dinañ euh, joxe ci description épisode bi bépp lien boo xam ne nii mooy ni permettre ngeen mën a télécharger application boobu mais aussi ngeen mën a dem ci seen chaîne YouTube pour déglu seetaan aussi vidéo yi nga xamante ni moom lañ proposé si naka la ñuy defaree yenn application yi ak langage de programmation yu bëri bëri bëri bëri. alors ñun nag dañuy dem léegi continuer ak suñu sujet tey bi maanaam les réseaux sociaux ay ca alors lan mooy réseau social il faut d'abord ñu comprendre que ne réseau social lu yàgg am la bien avant même technologie di toll fi mu nekk nii tey parce que réseau social ay nit la ay mbootaay maanaam ay organisation yu dajaloo di waxtaan di weccoo ay xalaat euh, mën na nekk ay famille mën na nekk ay collègues mën na nekk ay xarit mais aussi mën na nekk ay communauté yoo xamante ni euh, comme ay communauté étudiant Dakar wala ñu ne comme ay euh, fans club benn artiste wala ñu ne mbootaay femme yi nga xamante ni moo nekk ci koñ bi wala ñu ne ay daayira ak yu demee noonu donc pour résumer réseau social ay nit la yu bokk nekk mais li leen boole am sens. alors pour gën comprendre nag lan mooy réseau social à la base il faut que ñu dellu tuuti ñu dugg tuuti ci domaine sociologie sociologie xam-xam la boo xamante ni day gëstu di jàngale lépp lu jëm ci nit ni muy dundee ci biir société bi ak ay ñoñam alors ci biir sociologie boobu nag dafa am lu ñuy wax sociométrie donc sociométrie xam-xam la boo xamante ni day permettre nga mën a natt ci diir naka la nit ñi di jokkalante ci seen biir est-ce que ñoo ngi ànd di jubo? est-ce que seeni xalaat mu ngi moom mu ngi ànd wala seeni gis-gis dafa wute est-ce que dañoo am ay relation yu baax ñu ngi déggoo wala déet donc loolu la sociométrie di permettre ñu mën a xam loolu yëpp nag sociométrie di permettre ñu xam dafa am objectif objectif bi mooy fexe comprendre nit ñi naka la ñuy dundee seen biir mais aussi su fekkee dafa am ay rëq-rëq ñu jéem a xool naka lañ ko mën a pour que nit ñu mën a ba pare réussir li nga xamante ni moo boole wala ñu am sax jàmm ci seen biir te xam nga comme ni ñu koy waxee ci Sénégal jàmm ci la lépp xaj donc xam-xam boobu jógee ci sociologie maanaam sociométrie dina permettre nit ñi gën a mën a ci anam bu sell ba pare ñëpp mën a bénéficier wu ci loolu noonu donc li ñu war a comprendre foofu mooy sociologie yàgg na étudier naka la nit ñi di dundee ci société bi ak naka la ñuy jokkoo di waxtaan di communiquer ci seen biir pour que mu mën a indi ay solution su fekkee am na ay rëq-rëq ci diggante yi donc euh, je pense que sax loolu moo nekk base euh, développement ci société parce que société bu ñu du communiquer amul jàmm ci seen biir dafay am problème mais dafa am beneen mbir boo xamante ni day ñëw indi benn changement bu mag ci nit ñi ni ñuy jokkalante ci seen biir mbir moom nag moo nekk la technologie donc technologie dafa ñëw nekk benn support bu bees euh, boo xamante ni day ñoŋal euh, jokkoo bi nga xamante ni mooy am entre nit ñi alors loolu nag dafay ànd ak ay changement ci biir société bi donc day nekk ay changement ci côté social day am aussi ay jeexital ci wàllu culture mais aussi ci wàllu économie parce que su fekkee jokkalante bi dafa gën am doole day tax culture aussi mais aussi communication bi su gën a day tax aussi kom am il faut aussi savoir que développement technologie yemul ci internet parce que lu internet amoon ay téléphone amoon aussi réseau de transport c'est-à-dire ay trains, les avions, avion yi ak euh, ak mais bi innovation technologie am c'est-à-dire si la ordinateur du si ci la internet juddu ci le téléphone yu bees yi smartphone yi juddu mais aussi si la application yi ñuy installé ci smartphone yi aussi juddu nekk affaire bu am solo alors après innovation technologique yooyu nag ci la doxalin bi gën a changé gis-gis yi gën a complètement rapport yi nga xamanteni mom moom la nit ñi amoon ci seen biir changé donc innovation bopp nga xam ne ni moom la technologie am maanaam ñu ñu koy woowee ci français révolution numérique dafa ñëw changer dundin bi changer façon de xalaat bi changer ni ñuy jokkalante ci suñu mais aussi changer équilibre bi nga xamante ni la sociologie ak sociométrie doon jéem a rétablir dans la société pour que nit ñi mën en parfaite harmonie parce que soo jëlee benn nit euh, bu nekk société bi daa am ci dundam lu bari loo xam ni dafa dépendre ci communauté bi nga xamante ni moo ko wër donc jokkalante ak relation bi nga xamante ni moom lay am dafa am jeexital bu muy am ci moom. et je pense que tey yoon lañu ñu delluwaat ci niveau boobu maanaam comprendre suñ société yi naka lay doxee ci wàllu social naka lay doxee ci wàllu économie naka la culture bi aussi di doxee avant même de euh, créer wala ñuy jëfandikoo ay solution yoo xam ne ni day jógee feneen te feneen foofu yeneen réalité la ñuy dund. alors donc ni ñu doon gisee réseau social bu njëkk avec arrivée technologie bi lii définition réseau social day nekk day wute parce que nouvelle technologie dañoo ñëw en force. alors nouvelle technologie technologies na en force jamono ji nag suñu waxee réseau social xel yépp day dem ci lu ñuy wax les médias sociaux alors lan moo nekk différence entre réseau social ak médias sociaux médias sociaux muy bépp xeetu service boo xamante ni day permettre ñu mën a développer jokkalante bi am entre nit ñi à travers internet que ñu nekk ci benn bërëb wala mu nekk ñoo xamante ni dañuy circuler donc foo munti nekk ak médias sociaux yi da ngay mën a jokkalante ak ñépp ñu nekk ci biir internet ak ay jumtuwaay yu bees yoo xamante ni moo nekk smartphone yi tablette yi ordinateur PC yi ak yu demee noonu. alors li ñu war a comprendre mooy réseau social benn pàcc la ci biir médias sociaux yi. donc réseau social application la boo xamante ni day boole ay nit ci benn espace sur internet ñu mën di waxtaan di weccoo ay messages ay messages texte di weccoo ay photo ay vidéo ak yu demee noonu.

avant ñuy dugg spécifiquement ci application réseau social euh, yi nga xamante ni moom am damay préciser encore que ne réseau social benn partie la ci médias sociaux yi alors médias sociaux yi nag mën nañ leen xaaj ci partie les médias sociaux de publication les médias sociaux de partage les médias sociaux de réseautage les médias sociaux de discussion donc dinañ définir benn bu ci nekk mooy les médias sociaux de publication mooy médias sociaux yi nga xamante ni day permettre nga mën a publier ay articles nit ñi dem fa di ko lire maanaam ay blog ak ay wiki ak yu demee noonu donc foofu ñiy lecture ñiy lire ñoo fay gën a mën a euh, ñoo fay gën a dem pour lire ay articles beneen bi mooy les médias sociaux de partage donc réseau social yu gën a bëri nag ci parti boobu lañ bokk parce que ñoom dañoo am ay contenu yoo xamante ni dañ koy dugal ci biir application yooyu noonu te utilisateur yi fa nekk dañuy mën a partager waat aussi euh, contenu boobu noonu ak seen ay xarit am na aussi lu ñuy wax médias sociaux de réseautage donc loolu moom ay réseau social de contact la yoo xamante ni soo bëggee élargir say connaissances da fay dem c'est-à-dire su fekkee man dama nekk koo xam ne ni dama bëgg affaire sport mun naa fa dem yokk samay connaissances ci ñiy yëngatu ci wàllu sport su fekkee man ah, dama bëgg wàllu informatique mën naa fa dem rencontrer fa ñoo xam ne nii informatique moo leen neex wala genre demee noonu donc réseau la boo xam ne nii le plus souvent entreprise yi ñoo fay gën a daje ak yu demee noonu am na aussi lu ñu wax les médias sociaux de discussion donc loolu moom moo nekk réseau social la yoo xamante ni pour ay forum la ay messagerie instantanée entre amis c'est-à-dire comme ay WhatsApp ak yu demee noonu c'est-à-dire da ngay mën a interagir ak nit ki directement pour mun a waxtaan ak envoyer envoyante ak moom ay message texte wala ay message vocal ak yu demee donc loolu mooy les médias sociaux de discussion il faut aussi savoir que ne am na réseau social yoo xamante ni ñoom dañoo boole fonctionnalité yu bëri yoo xamante ni dañ koy gis ci médias sociaux yi alors médias sociaux yi nag dafa am fu ñu jaar ba yegsi fi vers les années 90, bi nga xamante internet euh, site internet yi aussi ñu ngi bëri maanaam web bi mu ngi développé wu en 1997 ci leen gis premier réseau social mu judd bu ñuy wax six degrees mu judd sur internet. donc réseau social boobu nag day permettre nga créer une page de profil créer aussi ay liste d'amis yoo xamante ni da nga leen di envoyer après ay message donc réseau social boobu nag amoon na un million d'utilisateurs avant ñu koy jaay benn entreprise en 2000 à 69 milliards de francs CFA. en l'an 2000 Bob aussi amna réseau social bu judd bu hot or not c'est-à-dire mo nek rafet nga wala rafeto buñ ko mëne tekki ci euh, ci wolof rafet nga wala donc réseau social bob nag da doon permettre utilisateurs yi poster seen photo bu poster seen photo ba paré yeneen utilisateurs yi di leen voter pour wax ndax rafet donc am na ñuy wax ne sax réseau social inspiré Facebook ak euh, YouTube euh, mais réseau social boobu ont gi dafa am ay parce que da doon dem bay causer sax ay manque de confiance euh, à des millions de personnes yoo xamante ni am na sax ñoo xam ne dañ daan alors en 2014 réseau social boobu nag dafa mujj nekk benn plateforme de jeu bi ñëwee ba l'an 2002 mu am beneen réseau social bu judduwaat encore bu ñu woowee Friendster

site boobu nekk benn site bu populaire maanaam site bu ñëpp bëgg ñëpp di ci dem mais nag malheureusement pour ñoom ñoo am ay problème technique maanaam seen serveur yi dafa saturé parce que li fay ñëw ci utilisateur àtt nañ ko donc du coup en 2003 beneen réseau social bu bees juddu bu ñuy wax MySpace donc MySpace ba mu juddoon nag utilisateur yi laan dem ci Friendster yépp dañoo daw ñëw ci MySpace parce que li waral loolu mooy que ne My euh, Friendster amuloon doole pour accueillir utilisateurs yëpp mais aussi MySpace dafa proposer benn prof ay profil yoo xam ne ni si ay profil public la parce que Friendster bu a fa dem il faut que nga inscrire pour mun a gis profil yeneen utilisateurs yi tandis que MySpace moom dafa ñëw def ay profil public yoo xamante ni même boo ñëwee ci site bi même boo inscrireul sax da ngay mën a gis ay profil en 2005 MySpace mu 25 millions d'utilisateurs. après mu 5 cinquième site bu nga populaire aux États-Unis en 2003 et 2005 nous avons constaté aussi que réseaux sociaux ont beaucoup développé en 2003 étudiant bi Mark Zuckerberg à université Harvard a lancé une application qui ñu FaceMash FaceMash lancé pour répondre ñi nga xamante ni ñoom ñoo génnewoon application hot or not mooy rafet nga wala rafetoo face match boobu nag moo mujj nekk Facebook un an après c'est-à-dire ci même année bi mu atteindre un million d'utilisateurs donc ci même année bi aussi ci la yeneen site euh, réseaux sociaux yu bari juddu bu ci mel ne LinkedIn nga xam ne moom dafa ciblé communauté entreprise yi c'est-à-dire ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci entreprise yi réseau yi nekk foofu noonu moom la gën a ciblé ci même année bi aussi ñu gis euh, réseau social de partage de photos bi photo bucket mais aussi Flickr moom tamit judd ci année en même temps aussi ñu gis naissance euh, WordPress nga xam CMS la boo day proposer utilisateurs de créer rapidement un blog di ci poster ay contenu alors en 2005 ci YouTube avec une vidéo première vidéo bu mu postée et vidéo a def plus de 56 millions de vues à travers le monde ci même année bi ñu avons aussi un réseau social bu juddu bu ñuy wax Reddit nga xamné ni euh, site la bo xamné ni nga mëna partager benn lien bo partager ce lien après nit ñi dañuy utilisateurs yi si nekk dañuy voter pour lien bi et nu vote bi gën a rek euh, lien boobu di la di ci page d'accueil du site bi donc boobu moo nekkoon Reddit alors en 2006 ci le réseau social bi ñuy wax. Twitter tout donc ci même année bi fekk na Facebook moom gën en popularité parce que les na ci université yi ba dem euh, atteindre monde entier bi yëpp ñëpp di utiliser mais Twitter nag judd na indi beneen euh, façon de faire am c'est-à-dire moom ay partage de moment la c'est-à-dire da ngay partager ay message yu ndaw message yu gàtt ci internet euh, message yoo xam ni da nga ciy wax sa moment bi lan ngay def c'est-à-dire maa ngi marché maa ngi def lii wala genre de mel noonu donc loolu la ñuy wax ay tweet donc ci même année bi aussi LinkedIn gën a am ampleur moom aussi parce que LinkedIn boo xoolee moom lañ daan woowee MySpace pour les adultes moo nekk MySpace bi nga xamante ni moom la euh, mag ñi di utiliser parce que euh, ay communauté ñoo xamante ñuy liggéey ci yenn entreprise yi ñoo fa gën a nekk ci jamono jooju ci LinkedIn. donc LinkedIn nag li def euh, li tax moom mu démarqué wu moo nekk premier réseau social bo xamanteni dafa proposer ay forfait premium c'est-à-dire dafa proposer ay service yo xamanteni euh, permettre euh, mu mun ko générer ay bénéfices moom euh, bénéfique aussi pour utilisateurs yi parce que dañuy mën un am yeneen services yo xamanteni ni nek utilisateurs utilisateur simple do ko am. nañ aussi que né ci même année yoy c'est-à-dire 2006 2007 YouTube. ci la gën a jël aussi parce que gis nañ ne mu ngi am en 2006 2007 presque 8 millions de vues par jour donc ci euh, ci Google jëndee euh, Google jëndee liggéey ak moom mu presque 100 millions de vidéos ci biir plateforme bi avec 200 millions d'utilisateurs yoo xamante ñu donc en 2007 YouTube a ci la lancé un programme de partenariat euh, entre plateforme B ak ay créateurs de contenu c'est-à-dire nit ñi mën nañ créer propres vidéos dugal ko ci biir plateforme bi et après publicité bi nga xamante ni moo si ñu partager entre euh, plateforme bi ak créateur de contenu donc après LinkedIn YouTube introduire na benn système qui permet ne permettre aussi mu euh, générer des bénéfices. bi en 2007 aussi ci la un réseau social bu ñu wax Tumblr donc Tumblr benn microblogging c'est-à-dire un blog la bu ndaw boo regrouper ay fonctionnalités yu bëri fonctionnalités yi amoon Twitter fonctionnalités yi amoon YouTube ak fonctionnalité yi amoon WordPress daf ko regrouper proposer ko euh, internet yi ak utilisateurs yi maanaam ci même année bi aussi ci la hashtag juddu parce que boo xoolee Twitter dafa permettre ci sitam nga mën a envoyer ay messages yoo xamante ni caractères lay doon tandis que soo demee Facebook ak Tumblr ñoom dañoo proposer ay messages yoo xamante ni ëpp na 140 de caractères ci noonu nag ci la Twitter amee xalaat créer li ñuy wax hashtag donc hashtag nag benn jazz la nga toftal ci benn mot bu ndaw donc pour que ñu mun a exprimer ay euh, ay sentiments ak ay exprimer ay humeur ak yu demee noonu donc au début Twitter ba mu koy créer c'était pour euh, mun a classifier mun a organiser tweet yi nga xamante ni moom la ñuy def ci plateforme am mais deux ans après dafa gis ne hashtag yooyu noonu dafa jël beneen ampleur nekk benn moyen boo xamante ni day permettre population yi utilisateurs yi ñu mun a exprimer seen i ay euh, seen i ay li sentir exprimer seen ay humeur mais aussi permettre aussi politiciens yi ak artistes yi ñu mun a poster ay euh, ay tweets ci ay thématiques euh, yoo xamante ni dañuy def ay hashtag rek nga xamante ni facilement da nga koy a retrouver sur contenu yi nekk ci biir plateforme bi yëpp. ci même année bi aussi 2010 ci la Instagram dugg si c'est-à-dire Instagram moom bi mu dafa réseau social qui permet de partager ay photos mais ce indi lu bees mooy photos yi dañ ci filtre donc en 2016 je pense euh, déjà nit ñëpp song ko euh, déjà 95 millions d'images yoo xamante par jour sur euh, la plateforme Instagram. donc même même jamono yooyu aussi c'est-à-dire 2010 2011 beneen réseau social bu bees du Pinterest. Pinterest nag moom dafa ñëw intéressé wu ci li ñuy wax décoration intérieure intéressé wu ci affaire mode mais aussi ci affaire magazine de blog yi quoi pour surtout pour jigéen ñi donc loolu moo tax moom mu ñëw euh, nekk benn réseau social boo xamante ni dafa am doole moom tamit ci wàllum réseau social yi. alors ci même année bi aussi 2011 ci la beneen réseau social judduwaat bu ñuy wax Snapchat donc li spécial nag ci euh, Snapchat mooy dafa ñëw proposer ay vidéos yoo xamante ni day des ci plateforme 24 heures donc 24 heures kese lay def ci plateforme après disparaître donc ci noonu nag ci le euh, adolescent yu bëri dawee gaaw Snapchat parce que li amoon Facebook mooy que famille yi seen parents yi ñëpp ñu ngi Facebook il fallait que nous trouver benen réseau social boo xamante ni ah, dinañ fa mën a daw dem fa di fa rencontrer seen xarit yi di partager ak ñoom ay vidéo ay photo ak yu demee noonu donc Snapchat était là donc ñëpp daw gaaw song Snapchat donc loolu moo tax Snapchat aussi ah, am benn popularité bu ngand donc année yi di dem technologie bi di gën a avancé bi ñëwee ba ci 2015 am lu xew mooy streaming donc Meerkat ak Periscope dugg nag ci geeru streaming donc Meerkat moo nekk première application boo xamante ni moo proposer des vidéos en direct maintenant streaming quelque temps après Twitter top ci aussi proposé le noir Periscope donc Periscope réseau social la permet de permettre euh, transmettre une vidéo en direct c'est-à-dire ngay fait une vidéo live en direct nit ñi xam euh, en 2016 aussi Facebook top, même euh, lancé bi aussi lancé Facebook Live donc parce qu'il fallait que je aussi mu euh, streaming bi avec un partenaire humain BuzzFeed euh, le Guardian avec New York Times. 2016 aussi Instagram lancé une monde tamit story c'est-à-dire ay vidéo yu ndaw la poster ci sa sa plateforme Instagram ci sa compte Instagram et day durer 24 heures donc ce mu copier aussi ci Snapchat alors bi ba 2016 aussi am yeneen événement yu bees yu yu ñëwaat c'est-à-dire l'élection présidentielle élection présidentielle États-Unis ak aussi fake news yi nga xamante ni seet nañ ko ci maanaam mooy information yoo xamante du dëgg donc année 2016 nekk na année boo xamante ni dafa métti woon trop pour médias sociaux yi parce que euh, problème élection États-Unis les politiciens yi journalistes ak yenn organisation yi nii dañoo utiliser plateforme euh, réseaux sociaux yi di véhiculer ay information yoo xamante ni du dëgg de vérifier di véhiculer information yoo xamante ni pour changer opinion nit ñi ñu faral benn président bàyyi keneen ki wala genre demeyoon yàq aussi deru yenn homme public yi donc loolu moo xew en 2016 euh, ci noonu euh, réseau social yu bëri aussi ci lañ ci lañ amee problème yu demee noonu ba en 2018 Facebook Twitter ak Google dañoo mujj sax dem apparaître euh, devant la loi aux États-Unis pour mun a expliquer euh, accusation yooyu nga xamante ni euh, teg nañ ko ci seen kaw. alors li xew en 2019 nag mooy utilisateurs yi nga xamante ni ñoo nekk ci internet dañoo commencé perte confiance ci li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi c'est-à-dire support bi nga xamante ni moo leen doon permettre ñu mun a communiquer ci seen biir mais donc il y a un réel problème de sécurité et de confiance pour am qui qui il faut comprendre aussi que les réseaux sociaux ne ay nit discuter avec dafa am aussi ay jaaykat ay marketeurs mais aussi ay entreprises yu nekk ci biir yoo xamante dañuy représenter ay marques ak yu alors puisque utilisateurs yi une confiance ci plateformes de réseaux sociaux il va falloir que même aussi euh, marques yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir ak euh, aussi jéem ut stratégie ko def pour que les a jaay seen produit c'est-à-dire des stratégies beaucoup plus humanistes parce que en réalité li am moy que ne soo inscrire ci un réseau social y am ay conditions d'utilisation mais le plus souvent conditions d'utilisation yi les am temps lire ko wala même buñ ko lire aussi duñ comprendre lep. alors réseaux sociaux sont nak dañuy jël suñu ay données personnelles c'est-à-dire les activité bo xamante ñu ko def ci réseaux sociaux yi imagine mu ngi Google Facebook. Instagram chaque jour nga dugg ci def ay actions c'est-à-dire choisir ay photos poster ay photos euh, interagir avec nit ñi donc information bi yëpp nag dañ koy garder ba pare mën ko euh, jaay ay entreprises yoo xamante ni dañuy jaay ay produits donc yow da ngay naviguer da ngay nekk sa ordinateur ci internet bi jékki-jékki gis ay publicité nga foog ne c'est hasard alors que du hasard ñuy wan lépp li nga xamante ni moom lañ bëgg ñun ñu gis et loolu nak day influencer bu c'est-à-dire li gis ci internet day influencer bu baax suñu ay suñu ay mais aussi suñu ay priorités, parce qu'il il faut que nous wax né dañuy perte temps bu les réseaux sociaux alors dañuy dem sax ba en ce moment dootuñ nekk ci maître de notre propre vie parce que euh, réseaux sociaux yi dafa occuper place pour ngand ci suñu euh, activité et euh, ñuy def ci journée bi. par exemple soo calculer woon tey ñaata temps ngay def ci sa téléphone chaque jour di nga am lu la bett parce que da ngay gis ne da ngay perdre temps bu bëri euh, ci sa téléphone chaque jour temps yooyu yëpp boo ko cumuler da ngay gis ne temps bu bëri ngay perdre si journée bi. et loolu aussi day affecté surtout jeunes yi nga xamante ni euh, ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci réseaux sociaux yi c'est-à-dire euh, dañuy fréquenter n'importe quelle personne et certes personnes yooyu nag ce sont des ay nit la yoo xamante ni ils sont virtuels mais conséquences yi nga xamante ni moom la euh, jànko euh, jokkoo bi ñu jokkoo ak ñoom conséquences yi mun a am day nekk ay ay mbir yu réel lay doon quoi donc gis nañ aussi sax manque de confiance que ne da koy jur gis nañ ñoo xam ne dañuy xaru ci réseaux sociaux yi parce que dañ leen di xas di leen ŋàññi ci réseaux sociaux yi ba psychologiquement dootuñ ko mën a àttan à la fin ñu xaru donc buñ seetloo y a beaucoup de problèmes ak réseaux sociaux yi nga xamante ni moom la ñu proposé euh, ci jamono juñ toll nii alors sujet bi nag dafa nekk euh, domaine bu yaatu réseaux sociaux yi nga xamante ni moom la war a am dans le futur fii surtout fii ñi sun euh, réew yi Afrique yi dañ ko war a xalaataat méngale ko ak sunu ay réalité sunuy gëm-gëm mais aussi ak sunu kom. koom ñu delluwaat ci sociologie ak sociométrie bi nga xamante ni day étudier population yi naka la ñuy dundee ci seen biir def ay rapport pour indi ay solution euh, si damm dam yi nga xamanteni moo am ci réseaux sociaux yi causé alors solution yooyu nga xamanteni la sociologue nous en tant que euh, des informaticiens en tant que des ingénieurs nous utiliser pour repenser waat réseaux sociaux yi pour xoolaat ci ban anam lañ ko proposer africains yi loo xamante ni day mën a ak loo xamante ni réellement au lieu que ñuy toog à chaque fois euh, yeneen nit ñëw dañuy influencer euh, ci seen produit yi ñu indi dañoo war a defar produit yoo xamante ni ñun ñooy influencer suñu propre société yi nekk ak ñun ci benn modèle boo xamante ni ñoo koy choisir suñu bopp. et je pense que suñu defee noonu d'ici des années dinañ am ay réseaux sociaux yoo xamante ni ñoo ko moomal suñu bopp. ça sera made in Africa made in Sénégal te dafay méngoo ak modèle yoo xamante ni day basé wu ci ngor jom fulla fayda teranga ak valeur yi nga xamante ni moom la ñu suñu maam yi bàyyee euh, depuis très longtemps alors loolu lañ indi woon tey nag ci réseaux sociaux yi des na nag lu bëree bëri bëri loo xamante ni mënuñ ko wax ci temps bu gàtt bi mais du ñàkk ne dinañ ci discuter waat encore ci yeneen épisode incha allah alors ñu ngi leen di jox rendez-vous nag ci beneen semaine ci beneen sujet merci beaucoup et à la prochaine ciao